mbokk yi Equivox TV nuyu naa leen internet yi téléspectateurs yi xam ngeen ne samedi le 19 juin ñu war a jëm fat arène nationale ak kan Garga 2 Mama Lamine bu Lamsaar bu ngeen gisee mbooloo mi ngeen xam ne Garga 2 tey ñu ngi fi nga xam ne moom mooy fajaa yaa xool mbooloo mi nekk suma ginnaaw mu wel ni waa Parcelles Assainies waa fajaa ñëpp a génn ak gox yooyu ko wër di préparer samedi yaakaar naa du mën a yomb ak kan Vox Arena moo fa yaa xool nit yaa ngi dégg sabar yi noonu yàgg maar gis nga mbooloo mi foo xool yaa ngi seen nit ñi taxaw ba ci état si am nañu taxaw ci kaw si kaw a kaw a kaw nit ñaa ngi fa taxaw léegi kon li ñuy def yàgg dañuy dugg ci biir rek wan gaa yi bi ak Garga 2 lan lay wax Maama Lamine Maama Lamine nag leen xamal ne moom alxemes lay def open press sam bu soobee yàlla Franc suba lay def ginnaaw suba alxames tamit Tyson 2 day def loolu lépp ci benn bés la nar a am ak Vox Arena pour wan leen ne moom loo ci mën a dégg samedi dina mel ni ba ngóor jaaye mbaam ma yàgg maar te na nopp yeddu dem nañ dugg si biir yàgg maar Balla Diouf a ngi nii Baydu Raas demi guddi waaw Masamba yi mbéri ndaw Baydu Raas demi guddi boo weddee li ma wax bàyyil bay Raas demi guddi maa ngi Babacar siyaar naa la Balla mu mel ni léegi waaw macha allah sant yàlla xam-xam bi mu ngi génn ndax bu ma mu ngi génn mooy yaa koy jox ay nit. dëgg la waaw ñun loolu mooy sunu rôle eh, defe naa ne dara boo ko pratiquer ba bàyyi ko mu tuut mu néew di ci xam as tuut yàlla dimbali juñ nag ñu nekk ak suñuy rak nekk ak suñuy xarit ñu dénk ñu seen bopp ba pare wóoluñu loolu rek dafa rëy donc mission boobu nag ñu jël ko tekk suñu bakkan waakirlu suñu borom pour gunge leen ci lii nga xam ne tey ñun fa lañ jaaroon. vraiment am ci expérience bëgg leen ci gunge ba pare ñaanal leen yàlla yàlla àggale leen fañ jëm. mais samedi du yomb de ak maama waa àdduna moom boo fi naree nekk muy yomb rek bu yeboo nga toog. maama di dajeel de. mbër bu naree bëre. doon champion. day daani champion. mbër dal na ci liggéey bi. ñun suñu xel dal nee naa la bu dee liggéey rek. mooy tax yàlla di may ndam. sunu xel dal na. bu dee liggéey rek. mooy tax yàlla di may ndam. ñun sunu xel dal ñu ngi koy ñaanal nag yàlla may ko ndam ndax wax dëgg yàlla bu dee liggéey liggéey na bu dee cër joxe na cër bu dee nangu nangu na ñun nag li ci des mooy ñëw gunge ko mu ànd ak ay mbokkam ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam jërëjëf cey yàgg maar yàgg maar Balla Diouf wax loolu seen naa Tafa Mbër Moussa Balla Gaye Papa Sow Dame góor a sok yee waa parcelle yëpp a génn Modou Lo Junior yaaram sax gis naa ko fi yaaram gay numéro un ñoom Mbacke Faye boo xoolee tey lii moo lay wan soo bëggee dégg-dégg samedi ah samedi du yomb seen naa fi kot su jaboog même yaaram maa lay ziar. maa ngi bu baax. yaaram ci loolu. maa ngi ci jàmm bu baax a baax. yaaram yaa ngi taxawu xale yi. waaw waaw samay rakk lañ waa Fege bëgg naa la. waaw fii la paiement borom ministère des na ma nan la de. ana daas Ablaye Ndour. Eh, paa bu baax bi mi ngi fi de mi ngi si jàmm baax a baax mi ngi jàmm bu baax a baax. mais daa mel ni parcelle yëpp a def benn unité ah. mais waa ji moo ko jar. Garga 2 il mérite plus que ça. wallaahi azim. pare ngeen. non kii mooy toujours prêt. xamul tax. sport dafa nekk si yaramam dañ koy ñaanal dam rek Babacar mais ana ñëpp a <laughs> man nii laa def de. ma ne la moo tax ma ne ñoom ñëpp a ngi fi. man moom ñaa man ñëpp laay faral nekk si jàmm mais liggéey bi rafet na jaajëf frère. coach su Jabong mang ngi lay ziar. Babacar. <laughs> moo nami moo frère. maa ngi lay ziar Babacar. ba am nga jàmm. maa ngi yéen ñëpp ngeen taxawu Garga de mel ni. daa mel ni seen yaram daal fi mu dafa tàng de parcelle. waaw mais <laughs> non c'est que Garga borom baax la rek xam nga il faut que ñu ñëw euh, jàppale ko si bësam bi donc euh, donc voilà. di ko ñaan ko combat bi ma la ci côté xeex. ci côté yow en tant ci wàllum xeex. Garga de am na avantage ci xeex. ah waaw waaw parce que am na am na direct yu baax am na crochet yu baax. am na uppercut yu baax te day xool daal donc euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla may ko ndam waaw waaw. seen xel dal na. alhamdulilah dañuy sant yàlla rek. suñu xel dal na waaw. liggéey ngeen si combat bi ba fi yow liggéey nga ak moom si combat waaw liggéey liggéey na at ay ay ay staff bi liggéey na at ay entraîneur am donc vraiment xel dal na daal. Arma Ndiaye waaye gorom la nag Arma bu Waly Seck. moom boo bëggee dégg-dégg moom gorowu go euh, garga dee ndax garga day seeg rakkam te dompat ci sot la bokk waaw waaw ndeysaan cey la la 19 xaaral ma xool li waay

Ndiaga 2 sama goro sama rakk lay sëyal koo xam ni papaam ak sama yaay ñoo bokk nday baay moom lay sëyal moo waral sama teew fii tey di ko ñaanal suñu borom may ko ndam lu sedd guy ci barke Sëñ yaa koy andi. ah yaa koy andi la 19. incha allah. la Babacar ci loo ne tàng na de yaa ngi ci jàmm non la 19 waaw andi junni bi andi andi 19 lañ dégg mu neex ah, ma junni la ma la koy jox voilà waaw kii day suñu nit yéen da leen war di tere fu leen barke yàlla parce que ñun yéen a tax ñu ñu xam ñu dama ne kii di woy maa ngi moom mbapat ba aran dama naan dem ba demi final ñu yàq mbapat mu yëkkati xaalis am may ma barke alxuraan billaahi yaa ngi ci maa ngi ci liggéey bi métti métti suba ngoon ah. waaw vraiment combat rek moo des mais Mama Lamine ab na ci moom lu bari non mën na daan ku dul Mama Lamine parce la te pare na wuu macha yal na ko yàlla defal cat mais pare na lépp waaw vraiment yal na ko xel dal na macha ndam lu sedd fekkee liggéey moom ak ful ak fayda ah, pare na ci ndes moom tabaraka wa taala rek moo des xalaatoo xeex dóor mu daanu am ci combat non yaakaaruma ko parce que léewtoog moom saa dawee pour Sonko da koy turu moom tey sa jaay jàppee ngambali na sote foofu kon yow xam nga secret bi li foore xam nga waaw parce que Sonko kat la day xeex ak yow gauche droite nga fekk si moom si riposte bi saa dawee di gëdd moom mu doo mbëkk la sooy bëri moom da toog say tànk saa dawee gëdd nga daw turu ko jàppante moom jàppante moom ci bëri parce que gargëd ndaanaan la waaw saa waaw moo dàq bëri moo dàq bëri yàlla na ko yàlla defal ndam loolu moo dàq bëri ak li wane moo dàq bëri moo dàq bëri waaw lamb nag kenn xamu ko waaye moo dàq bëri moo dàq bëri jël bi mën naa gaaw combat ku la gën a intelligence moom dax bëri loolu soo ko tabee si bi rek mën la mëkk waaw loolu la quoi jaajëf sëñ Babacar am naa bëri le 4 juillet bi question tamit bëggoon na ma bëri si combat saa kees maa ngi wës jàmbar mais sottiwul quoi waaw mais nag maa ngi bi waaw maa ngi bi di xaar combat mais nag sëñ Tuwaal morom waaw soo ma gisee nii xam ne maa bi fan la nga tur daan wooyee le Ronaldinho de l'année ba tey yaa nga ca dama xaw a naqaree bëri parce que ma sama bopp te dama téye sama bopp liñ ay jigéen ay jàng bu man jàng bu góor laa barki sëñ Tuubaa Mbàkke xaw ma nu bi rek ak kafe gi sëriñ bi ak kafe kese xamoo ci jigéen xaw ma si dara xanaa ma suñu borom may ma soxna su waaye soxna ma am nag di am góor yàlla bu baax am góor yàlla di am taalibi sëñ Tuubaa amagoo soxna maa ngi fi mu nekk nii moom mu ñëw parce que su kon ah. su kon open ba day tas da koy yàq maar Modou Lo cey lii cey Modou Lo waaw comme d'habitude rek xam ñu suñu ay raq lañ il faut ñu gunge leen doole leen mbooloo bi ngeen bennee woy dafa doy war waaw mais ànd naw la rek ay nit moom bu ñuy ànd moom kenn ku nekk rek léegi cey Modou Lo billaay bari bayre siiw nit ñi bëgg aa ah, ay caaxaan mayewu ko waaye kii am na ko ba mu doy sëg Modou Lo dugg na rek open bi ñëpp jóg xool ko ee Modou Lo eh waay jege na ey Modou Lo l'adversaire de xoolee li garaaw mooy làmb rek a mën li daan na bëri na ak Balla waaye gis nga tey mook ñoom benn lañu. Ndaysaan Papa Sow ak Balla Diouf a ngooŋu Modou Lo taxaw. ndeysaan cey loolu waay parcelle waay jëlal ma Modou Lo cey loolu Vox Arena am ngeen jaaraama billaay seeni mbir yal na ci yàlla gën a teg loxo Modou Ngongo ak mbaxanaam cey Modou Lo bëri bayre lool bi rafet na kay bu laaj li ko waral gargaa ko waral muy suñu doomu day suñu lépp xam nga di ko ñaanal yàlla rek incha allah may ndam ci kaw Mama Lamine incha allah. moom defanteeg moom yomb na. waaw non lamb muy xeex la di soog. mais garga wóolu na ci tous les plans ndam bis ba incha allah. le 19 di nga ñëw stade. ñoo ngi koy ñaanal ndam daal moog Franc yëpp incha allah waaw yëpp waa parcelle yi am combat yàlla na yàlla may ndam incha allah. ci parcelle lu waral àndandoo bi. waaw dara lu naturel rek ñoo bokk nekk ñun ñëpp ñoo bokk nekk xam nga dañuy jàppalante ci lépp lu nekk moo tax yëpp benn la daal waaw yëpp benn macha allah. war a tàng ngi rangoo juróom yaram war a tàng ba sama yaram man rek moo war a tàng la yaram sër rangoon waaw man da xaw ma damaa rangoo rek ndomba yi nag yii bëri na te leen benn baaxu ci benn baaxu ci ñu nag moom ba mu ja woon na Cheikh Ibrahima ñu nag moom ba laamu ja ba gargar daan mboot mu rey ñu ñibbisi maa la wax lay jàppal jàppal dóor ba mu dee mboot mu daanu xam naa xam nga bu deewee ndam amatu fa waa dañ koy mbot daan waa mais Tafa ci ne waa ñu ngi sant baax a baax Tafa maa la nam ñoo la raw yow naka yëngu nam ngay utiliser ndax yow sa namu chinois la déet waay buntu ko yow ma américain laa yor waaw wuy ma gaa yaa ngi may woo gaa yaa ngi lay woo ñu ngi lay woo ñoo teew fii ba seen yitte di nuyu waa Cité Fadia bu baax di nuyu waa Parcelles Assainies gis naa tey ni mu génnee wax dëgg yàlla dégg naa trop Parcelles Assainies Cité unité 6 xam nga parcelle 1 ba 26 bàyyi ma kenn kàmm rek amoon kàmm rek la gis naa seen génn bi génn bëgg naa ci trop di nuyu mbooloon fi taxaw ñëpp di nuyu dawalkat saret bi ñoom njëkk a ñaa xam nga di leen wax ni wax dëgg yàlla bëgg naa trop di nuyu sama mbokku mbër yi nga xam ne dañoo bàyyi seen yëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk seen juróom sant di wax ni bëgg naa mais Garga ngay pare le 19 incha allah gis naa parcelle Fadia Modou Lo Papa Sow mu ñu leen li macha allah ñëpp génn nañu mais sa adversaire lan nga koy yóbbante ak loo koy wax bis ba incha allah. waaw di ko wax ne na waaj rek ànd ak ay mbokkam ñun ñu ngi waaj ànd ak suñu mbokk tey waa parcelle gépp ma jàppale xam nga di sant waa parcelle gépp ñoom Modou Lo xam nga waaw ñoom Papa Sow suñu grand xam nga waa Goro Sock xam nga di nuyu nag waa kër parce que sono yi nga gis fi yëpp ñoom ñoo ko def xam nga génne enveloppe bu indi ko du woo nag sama grand laaj Diop bu baax directeur Lona di ko wax ni ko combat bi combat am la na ci jàpp bu baax baax baax jëndal ñu bee di sant nag maam père ba bu baax a baax di ko wax ni ko combat bi combat di woo nag ministre ministre de la jeunesse ah, ne na taal ñu ngi koy woo bu baax a baax di wax combat bi moom it ñu ngi jàpp ci di woo Moustapha Camara di ko wax ni moom ñu ngi koy ñaanal mu tane bu baax a baax na woo autorité yi tamit ñu jàpp ci bu baax di woo maire Golf si di woo nag sama benn grand bu baax bu ñuy wax grand maana Gomis borom école laal stages gis naa jàppale bi di wax kontaan naa baax di woo sama benn grand Dame Gueye depuis Canada Dame Gueye depuis France di woo Dame Diouf depuis Canada di ko wax ne combat bi la na ci jàpp bu baax a baax di nuyu nag journaliste si toog fii yëpp waaw. Ah, yan ma yan ma nuyu na ñëpp gërëm na ñëpp na wax ci Mama Lamine bu ñu tëjee barrière yi Garga 2 Mama Lamine ci diggi géew gi Mama ñu gis ne mbër la moo xamante ne nii ay combat mi bari par xeex la koy gagné. Garga 2 nga nekk ndaanaan bërikat mais nga gëj a bëre tey gi day xale bi nga xam ne mooy Mama muy xale bu bari coow làmb yaag Mama Lamine ci digg yow ñu tëj barrière yi sant nga ñëpp ak Mama Lamine mu ci caméra yi non ñu koy ñaana rek mooy yàlla defal ko jàmm boobu le 19 bu ñëwee incha allah rabbi yàlla def ñu bëree moom jàpp ko daan ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu xeexee ñu duma ko su bëree ñu daan ko déggu ma de su xeexee ñu duma ko su bëree ñu daan ko Garga 2 ñu gis ni Mama Lamine xale la boo xamante ni bis bu jot day wane boppam ñu gisaat beneen Garga bu bees ma ñëw concentration bi surtout état de forme bi parce que bët day liir macha allah ñu gis beneen Garga 2 préparation nan nga doon préparé combat bi. waaw ak ñaata séance ngeen doon def nag loolu nag maa ngi koy nuyu sama coach yi coach waa jàmbaar Wrestling Academy yëpp ak mbëru parcelle yëpp parce que mooy ñu ma jàmm mooy ñu ma salaam lépp lu ma def rek wax dëgg yàlla mooy ma ci jàmm. ak déglu waaye ak dégloo gars yi comprendre di sant Papa Sow bu baax a baax a baax parce que mayu jàmm maam père ba ñu ngi koy sant ak doomam Mansour parce que ñoom Papa Gueye ñoom Pam Ndiaye xam nga mayu ñu ma jàmm quoi ay ñoom góor xam nga góor a béy góor a soog mi taxaw mayu ma jàmm ma jàmm ngoon fu ma naree noppul sax ñu ma doon noppul sant tamit Alioune Mbengue bu baax a baax parce que yóbbu na ma fu na ci àdduna barke Arafat parce que combat bi sonn di nuyu sama grand frère yi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal bàyyi ñi ma bokkal ndey ak bàyyi yëpp dinañ ci ñëw sama doom bàyyi parce que gis naa non maanaam may ñu ma jaam loolu lépp ci préparation bi laa lay wax hmm. bëgguñu ma xiif bëgguñu ma mer xam nga bëgguñu ma manqué dara hmm. di sant tamit sama soxna bu baax ak sama waa kër bu baax grand yaaram géey moom damay ñibbi sama kër sax xoolal mu may woo téléphone naa ma defal lii lii baax na ci sportif defal lii moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko fan bu dëgg wér-gu-yaram wax dëgg yàlla ñun mbëri parcelle yëpp amal nañ ko sant moom grand yaaram ñoom Ibou Laye xam nga mhm. mhm. la liitir man a xam talu soo a xam ko ci moom tarkindaa la du dellu ginnaaw a wane ci yow la xam nga man xaw mee ma li ma gëm mooy li ma liggéey ci kàttanu yàlla le 19 incha allah rabi ñu wax parcelle gépp nañu génn ñu mobilisé wu mobilisation bu am doole ñu dem jëli ndam li indi ko incha allah tey bu la adduna bi yëpp doon seetaan ngay ñaan Mama Lamine seen diggante yéen ñaar war a jëflante lan nga koy ñaan non Mama Lamine amul lu ma koy ñaan la def lu ko man li ma arrangé laay def incha allah mais comment bi yaay favori non man du ma favori parce que gars yi neen Mama Lamine may favori ñëpp dinañ jox non man làmb lépp lu mu laaj rek parce que dañoo nekk ci ay préparation nekk ci ay loxo da naa ma lii ngay bëree loolu laay bëree incha allah rabbi di sant nag waa Jàmbaar Wrestling Academy yëpp di sant waa Parcelles Assainies waa kër Amadou Ba nag gis naa seen taxawaay bu baax a baax dégg naa ci ñoom di leen wax ni grand Seydou gis naa taxawaayam bu baax a baax wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm grand Zem Kan ah grand Nazer xam nga waa kër di woo nag encore Lat Diop di ko wax combat bi combat la di nuyu doomu ñoom Gora Mbaxal xam nga ak doomu ndeyam Pape Sall ñoom wax dëgg yàlla ay Tafa xam nga ak ak ak Tafa Buuju aussi woo na ma tey ni ma Lat Diop dina ci jàpp bu baax di woo Cheikh Fidior Khadim Touré di woo sama mbokku ñeeñooy di leen wax ni combat seen combat di woo Dame Diouf depuis Canada di ko wax combat bi mu bëgg ma ay billets yu bari woote nga la Diop moo ne dina jënd billets yëpp kon na incha di woo nag waa di woo waa Ndande Fall jëlal déglu jox est-ce que boobu am na yow yaa tànn maanaam la wala boog moom moo imposé wu a am amul. non xam nga ñun ay mbëru làmb lan dañoo ne ci ay loxo pour ñu wax ni bëreel ak moom rek ñoom loolu la ni kooku la ni bëreel Mama Lamine champion la def na ay preuve am xam nga li ma ñun aussi toog nañ lu yàgg gëj a bëre làmb boole ñu ñu bëre war a bëre incha allah rabi di ñaan yàlla ma ñu ndam ci kawam rek bu sooba yàlla mais gars yi ne la wax si wax si combat ma ci war a wax wax naa ko li may wax mooy woote aussi làmb ji promoteur bi ñoo fay xaalis pour ñu mobiliser ko di woo waa parcelle gépp waa Ndande Fall gépp boo xam te ni rek maa ngi lay woo waa Casamance gis naa seen taxawaay bu baax a baax sant naa ñëpp képp foo xam te ni dem naa fa ñaan lu rek du nuyu waa Touba waa Darou Salaam waaw ñoom si Sidi Mbacke waa Baye Baaxe jëlal question bi jëlal question jox ko question bi jox ko question bi. non ñun ay professionnel lañ yàgg nañ ci làmb xam nga li mu ngi mel ni ma nekk parcelle di préparer génnuma parcelle ba tey comprendre samay grand la dañ may gunge di nuyu waa Dóor Dóoraat yi nga xam ne fa laa nekkoon staff bi yëpp bàyyiwuma kenn parce que gis naa seen taxawaay ci combat bi ay vieux xam nga dañoo bàyyi seen yitte yëpp Cheikh Thiam bëgg Fallou maa ngi koy nuyu xam nga Père Gora Diagne di nuyu sama mbokku mbër yëpp nag di nuyu Galaye Ndour sama xarit sama doom day ngeen combat bi balaa ngeen a bëri ngeen xeex tuuti est-ce que dóor wax xam nga bëre dóor moom bu ñuy wax lépp nga yóbbu da ngay yóbbu xeex yóbbu bëre parce que kenn du dem guerre di fàtte sa arme comprendre lépp lu làmb ju laaj ci kàttanu yàlla dinañ ko def di woo waa Parcelles Assainies yëpp wala da loolu ngeen bàyyi ba le 19 incha allahu rabbi te si tuus mi non ci mel ne Armand tuus mi ku ci mel ne Lamine Naar Gawlo xam nga tey boo xoolee open ni mu mel rek open naa mel nii dëgg la comprendre nga géwél yëpp gis naa seen taxawaay mhm. ak gawlo yi xam nga mhm. di woo sama mbokk ñeeñooy encore une fois di nuyu sama mbokk yi mhm. samay ndijaay samay mag mm-hmm. samay papa xam nga mm-hmm. du nuy doomu ndànd yëpp di leen wax ni combat bi dama soxla ñu jàpp ci bu baax a baax di woo Sidi Tànne di woo sama benn grand Maama Lamine lu ñu koy wax mooy na waaj rek na waaj parce que ñun pare nañ wax dëgg yàlla jumboo tamit gis nañ ndox bu bari bi mu fi indi xam nga di woo sama grand Kéba Kanté di woo waa France ñoom Cartouche may na ma xaalis bu bari daan xam nga Modou Lo jàpp na ci bu baax Papa saw gaa yëpp gis naa seen taxawaay di woo encore une fois Khadim Touré di ko wax combat bi la moog Cheikh Fidior dama bëgg ñu jàpp ci bu baax a baax. du sant tamit waaw kii mooy grand Serigne Ndiaye dañ koy ñaanal yàlla ko suñu borom yërëm te xaaral ko jaajëfal. amiin amiin ci biir ci biir nekkoon tur bi daanu malaise. suñu borom yóbbu ko ñu ngi koy ñaanal yàlla ko suñu borom yërëm. tamit sama jarbaat bi nga xam ne moo làq du fan yi mm-hmm. ci kër yu Malika bi di nuyu di jaale tamit béy di inte gis naa wax dëgg yàlla famille bi yëpp maa ngi leen di gis fii di ko ñaanal suñu borom yërëm mu taxaar ko ci àjjana firdawsi di ñaanal sama jarbaat yi tamit yàlla na leen suñu borom yërëm taxaar ci àjjana firdawsi waaw di sant ñëpp nag di sant journaliste di gis naa seen taxawaay di leen masaw coono parce que tamit da ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw di nuyu waa sas waa 15 ans waa feeraay waa golf sud gis naa seen taxawaay di woo waa Cambérène mawor mawor yëpp di leen wax ni combat seen combat la maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di woo ogo ogo yi gis naa seen taxawaay mool yi waa waa golf waa waa Dalifort waa ginnaaw raay tamit maa ngi leen di woo bu baax a baax di nuyu samay nijaay samay bàjjen di nuyu sama waa kër sant naa sama yaay nekk foofu yëpp sant naa journaliste si jërë ngeen jëf